damay def sax bande annonce seen doom yi ci kattante rek bu ñuy bu ñuy laalante dañ leen di dégg pet vaginal doxat boo leen di kattante néeg bu xale yi di fanaan doxat ba defarasone bu koy katt di ko juutal di ko katt sax data bi di wëliis pour bëgg koy bi dugg ko katt ko man damay doxat julli moo may tàggale doxat mu amul ku dul day dimanche yow déjà da nga juutu sa tat bi nga aj ko ci kaw data bi nekkee ci kaw sa data bi boo ko bàyyee mu relax di nga sentir benn air buy duggaale day mel ni ku siffle booy tuuti rek day siffler danaan koy buy kataat di ku ci biir xóot xóotu bajo bi xanaa da ngay téemale tane bi si biir data bi nami ana nga koy unni ba ubbi ni data bi ni ba mu ubbe nga tek ci ventilateur muy dugg ci biir data bi seddal data bi si biir sama ngelaw kër musu dugg sama data nañ wax lu leer de laaj nañ sama jëkkër do sol slip data bu yàggee tëju tamit farax de comme goor ni am na ñu fi mëna tembal tëmbal ngay profiter walé ben vendredi sol jalla be yu rafet yo tembal ci biir nag ñuy doxle affaire dingaling da ngay seug rek data bi baye ben air am nga yéen tàmmoo leen Captain Té Matin balaa may dugg nag ci biir thème bi yow mii aboné gul nga la waay aboneel activé say cloche notification tamit nag ah mais tamit bul fàtte aimer vidéo bi ci la bokk de yow mi amoon ba pare activer say cloche notification amuloo morom jaajëf mais bul fàtte di aimer vidéo yi dafa am solo aimer c'est gratuit kenn du la gis kenn du xam ne yow yaa aimer Samba Ndiaye Farimata Ndiaye ki ko mën a abonné wala nga aimer vidéo bi. activer say cloche yow rek yaay xam ne yaa bokk ci chaîne bi kenn du ko xam man borom chaîne bi siiwal xumb te dagan mënoo ma ko xam donc gars yi abonné leen aimé leen bi activer leen seen i cloche ñu continuer nag xuus jàll ci biir thème bi. yaa dalal leen jàmm si suñu chaîne siiwal xumba dagan ñu ñëwaat tey ci beneen vidéo bu bes. donc tey dama andil vidéo bu howa a ute ak sama premier vidéo wu semaine bi donc ma defal leen benn recap vidéo yi passé ci semaine bi ñu nekk nii lundi nag dama def benn vidéo ci li nga xam ne position bi nga xam ne dangay taxawee ci gannaaw ndaw si di ko ko ganau, gannaaw di ko ko kattee katt gannaaw mercredi bi dama def benn vidéo buy wax ci di ci répondre benn question bu ma jotoon ci sama WhatsApp comme ni ngeen ko xamee numéro bi disponible na fépp ci sama plateforme bi ma jël décision wax ci question yooyu répondre ci question yi ci sama xam-xam bu tuuti ak yéen aussi bàyyi leen seen part seen freedom ngeen mën a wax lan ngeen xalaat ci li ñu posé loolu moo doon deuxième vidéo démba demal nga seetaan ko léegi nga doore ñëwaat ci vidéo bi seetaan ko donc vidéo bii nii nag question réponse lay doonaat dama leen di liiral exactement ni ma ko ndaw si bindee ni mu ma bindalee message bi laaj ma ci question loolu laa leen di liiral d'abord décortiquer leen ko maanaam tojal leen yax bi ci digg bi du baaraam fi ngeen ko mënula duut wax directement li mu wax ma leen data bu dee bu dee daf ne la intimité ma leen kattante donc loolu laa leen di nar a tojalee tey wax leen exactement li mu wax ci texte bi lépp sotti ceex def ci la mais même boo déggee làng bi dama la koy gën a tojal ci ci wolof même boo déggee wolof dama la koy gën a tojal mu leer kon xam nga kon man man pare naa pour toj lépp voilà foofu laa bëggoon mu leer balaa ñuy avancer d'accord moving on ñu ñëw dugg nak ci thème bi yéen samay nen ni tuuti yéen laay waxal man xaar ma jël téléphone bi nànk zoomé ko mën ko lire parce que da ngeen a xew te siiwal dafa xew Euh, vidéo bi ni tay nak question bi man ndaw si wax il faut mu yuuxu parce que ki di liggéey ci biti mu ngi def ay bruit di dag ay gazon te mënuma dégg bu baax donc il faut mu yuuxu donc question bi nak ndaw si dafa ne je suis une femme mariée avec mon mari nim ko bindé la koy dire même budul français je suis une femme mariée avec mon mari manam dafa mariée ak jëkkëram ñu am ay doom amna ñaari doom benn bu góor ak benn bu jigéen waaye nee na jëkkëram amul moyen manam? day góorgóorlu si liggéey maanaam dañoo pauvre riche ñu amuñu xaalis looloo waral li tax mu pover, dañoo pauvre mu ngi ñëw ci biir texte bi moo waral ñu am benn chambre ak beneen chambre bu tuuti gàllaxtaan muy deux chambres maanaam ñaari néeg lañu yor mais benn néeg bi bu mag la benn bu tuuti gàllaxtaan waaye bu tuuti gàllaxtaan boobu dañ koy utiliser comme seen salon mooy fi ñuy recevoir seeni gan mais première chambre bi moo ak jëkkëram ñoo fay fanaan salon boobu nag bu guddi jotee fala ñaari doomam yi di fanaan muy góor ak jigéen laaj leen ma ñaata at la doom yi góor beeg jigéen bi am ah ba ngeen xam ok nañ ci dem nee na dix-huit ans la doomam bu góor bi am doomam bu jigéen bi mu ngi ci quinze ans différence bi ñaata la trois ans lañ magantee ay majeur lañ teenager mais ci chambre bu ndaw bi tuuti gallax boobu la ñaari góor ak jigéen bi di fanaan teg leen foofu point parce que dama fi ñëw may euh, wax sama xalaat instant damay décortiquer <laughs> beneen bi mooy mu ne le très très très très grand problème mooy ñoom ñaar bu ñuy def seen rapport bu ñuy kattante bu ñuy laalante seen doom yi dañ leen di dégg te seen doom yi dégguñu rek noonu rek de xam nga lan la ñuy dégg pet vaginal maanaam doxot boo leen di kattante doxot boobu di génna pour pour boobu da leen di dal parce que doxot boobu dafa foor tellement foor a foor ngandam maam foor doxot la boo xam ne yemul rek ci néeg bi de dafa dem ba néeg bu xale yi di fanaan doxot ba dafa raisonné di raisonné si néegu xale yi y'a problème ah ba tey maa ngi ci dekkoo tige bi waxaguma sama xalaat nee na nag loolu dafay déranger jëkkëram déranger seen kattante ba nga xam ne jëkkëram sax bu koy kat di ko juutal di ko katt sax pet vaginal bi day for ba jëkkër ji day déranger wu arrêté katt bi malgré ndaw si day saf saf data bi day bëgg mu katt ko bay bëgg dee data bi di valise di wëliis pour bëgg koy bi ñëw duggu ko katt ko jëkkër ji day arrêté jëkkër ji arrêté boobu nak nee na du coobareem mais jëkkër ji dafa am kersa si doxot yooyu ñoom ñaar kenn xamul kan moo ciy doxot jëkkër ji daf ci am sax mu waral mu arrêté kat bi affaire raison yi raisonné yooyu di raisonné si néegu xale yi wàññeeku mu door a continuer ne nee bu commencé waatee continuer sax pet vaginal bi day ñëwaat léegi loolu nag dafa dem ba ñoom ñaar dañoo am complexe jëkkër bi ak jabar ji dañoo am complexe ñoom ñaar seen biir kenn si ñoom ñaar musul souligner problème boobu ne lu tax ngay doxat wala keene sa morom lu tax ngay doxat parce que ndaw si moom jàpp na ne moom mooy doxat mais jëkkër ji jàpp na ne ñoom ñaar ñëpp ñooy doxat moom xam na ne moom la mais rus na wax ak jëkkëram te bëgg na aussi xam lan lay def pour solution parce que am na gàcce ci wax ak jëkkëram te beneen problème bi nga xam ne moom yematul rek ci rus ko de mooy xam na ne ay doomam Qui di 18 ans ku góor ki ans ku jigéen ki ñu ngi leen di dégg bu pet vaginal yoy di départ di commencer di def concert ñu ngi leen di dégg nee nak nag doom nawle la mo waral tay muy xol ndax mom mo feebar wala jigen ñëpp lay dal ak tamit nan lay aborder jëkkëram pour ñu ut ci solution parce que amuñu solution laaj na nak ñu wax ko aussi benen solution muy lan moy dindi pet vaginal boobu lan mooy tax mu arrêté lan la war a utiliser pour mu arrêté mbokk yi xarit yi am na jàmm yi mais nee na tuuti lii laa leen indil tey ñu nar cee waxtaan sama sujet la nag waaw waaw sama sujet la dama nar a fas yéene leena waxtaanal ci lii kii nag dinaa ñëw ci moom léegi mais yéen dama bëgg en même temps yéen ñi di door a ñëw Abonnez-vous, abonnez-vous, activez les activé seeni cloche notification aimé vidéo boo leen seetaan rawatina bii tamit ñu door a dugg nag ci waxtan bi xuus ci bu baax bi dama ci fasiyene yéene xuus ba ndox mi yek sama baat parce que pareeguma bàyyi li mu wax ni mom, j'ai vu ma tête dedans ki nak dama ko bëgg nak commencer ben dalal xelam moma ak war nañ fo ku nekk da ngay wax sa bopp li nga xalaat sans pour autant ñuy rusante jëkkër bi si boppam war na am mat bu tollu ne jabaram suñ amee lu ko dal moom ci boppam mu aborder ko boo leen bañee lool xoola mën nga ko ko sax café nga ne ko waaye yow yaa ngi doxat rek loolu mën nga ko kafe comme saa moom mu relax ñëppay doxat waxaguma lan mooy waxuma waxaguma pet vaginal mooy doxat de dinaa ci ñëw. premier point jëkkër ji laay wax warul woon am rus pour wax loolu kon cela veut dire que ñoom ñaar buñ taxawee duñ doxante kenn doxo ci kanamu moromam. loolu tamit bu ma sañoon mu répondre question boobu mais comme maa koy def garaaw loolu day am ay cas yu différent am na ñoom dañuy marié amuñu complicité am na dañuy marié dañuy am complicité te ñaar yëpp dañuy continuer dox mariage yëppay dox donc loolu la donc comme ñoom amuñu ko amuñu complicité boobu jigéen bi si boppam laa bëgg mu xam benn affaire. doxot déjà c'est normal c'est naturel doxot pété am na naan kan farit you ok ay waay jigéen day man ni man parfois man dama ëppal man moom rabu buy buy ndëpp laa comprendre naa man xam naa je très rare mais beneen bi mooy man ma wax la man léegi sama bopp man damay doxot man public damay doxot ñàkk public damay doxot man suma doon dem di dox fenn sax damay sori nit ñu tuuti nekk fër fër fër doxot bu waree génn duma ko denc mu may jox ay ballonné ventre ballonné ngay am war wallay ba ventre ballonné ngay am ma tek ni téléphone bi mëna a jàkkaarloo nag yéen da nga war a doxot man sama kanamu jëkkër est ce que xam nga ne damay doxot ci kanamam lan la war a xalaat moom mu xam ma di gis li gën li gën précieux si man lay gis bagage yi bagage yi taxaw sama kanam doxal do dara ci mom day taxaw may ma fent parfois duma ko sax faale damay toog sax wala xol julli momay tagale tàggale doxal man man mom damay meuna a damay bàyyi mu jall parce que yéen de wax len ma yeen yow amul ku dul day dimanche wax len ma ben ciib ciib nit rek ngay gis ne ki mom ni ma sofé melni ku dul day dimanche parce que amul ñeppay day dimanche kon yow sa jëkkeer lan moo ngeen bëgg am problème doxal data bu doxoon yéen aussi ngeen xa ngeen wax ma kan moo musul kattante te doxoon amul. troisième bi mooy dans ce cas est-ce que pet vaginal mooy doxoot pet vaginal li koy waral xam nga lan la muy air boo xam ne dafa nekk ci biir data bi te lool xam nga lan moo koy andi. benn façon position boo xam ne c'est très très clair ne que soo ko defee 100 pour cent da ngay am pet vaginal muy position bi ma waxtaanee lundi bii passé vidéo boobu dem leen seetaani ko muy position juutal position juutal katt bajo bi foofu la pet vaginal di amee la plupart waxuma chaque jour lay am parce que parfois man du may dal mais la plupart pet vaginal position juutal moo ko gën a mën a andi te position juutal dafa gën a nekk ci li gën a neex ci position yi lan la koy andee mooy yow xam nga ni deew déjà da nga juutu sa tat bi nga aj ko ci kaw data bi nekkee ci kaw yow ni nga juutoo rek di nga sentir booy sëgg di dem suuf ah? sa data bi boo ko bàyyee mu relax di nga sentir benn air buy duggaale day mel ni ku sifle booy juutu rek day sifflet danaan sifflet mel ni ku aspiré air bi nekkoon ci biti dugal ko si biir data bi